Deuxième législature bi li fi xewoon ku ne dégg na ay saagante ay xastante ay affaire melni kenn ku ne sa intérêt personnel mo la taxa taxaw fi te déedéet parti moñu tan mais askan moñu fal parti moñu tan mais askan moñu fal je le dis et je le répète toujours dama koy wax man tank bobu la taxawé assemblée. taxaway bi ñu war am moy askan wa dañ ñoo doylo ñu dagaan seeni baat ñu jox ñu ko muy carte yi xob yi xob yooyu lu tax ñu jox ñu ko yaakaar te yaakaar dafa foor ñun tey ñooy jaamu askan wi kenn ku ne localité ba lafal yaay seen jaam tey danga war a taataan seeni tawat la leen metti la leen metti mooy lañu ñu ñàkk la soxla lañu ñu bëgg lañ bëgg ñu dimbalee leen ko nga xam ne tey bu loola ñëwee buñ fa tegee seen tànk mën a feeñ ci gouvernement Macky Sall bi tay ji Lola la askan wa soxla motax ñu jox ñu seen bon bu dañu war euh, seen tawat yoyu manam doléance li tubaab di wax doléance ñu ñëw exposer ko devant chaque ministère bu jall ñu exposer doléance yoyu ay waxante ñaaw fi ñu waxati encore ne ay lii la Ablaye Wade def lii la Macky sàll def indi wuñu fi ay ay amalgame yooyu ñu bëgg a indi fii indiwuñu fi dañoo war a joxe la bon exemple ndax àdduna wërngal këpp ñoo ñuy seetaan rawatina réew réewum Sénégal suñu njaboot surtout njaboot googu ëllëg walla relever le défi waxuma njaboot gi ñu jur njaboot gi ñu jur ak njaboot gi ñu jural lépp njaboot la bon ñooñu dañoo war a copier ci ñun loo xam ne lii ëllëg bu ñu retraité te ku dund lu bari dese lu tuuti mag lañu qu'on se dise la vérité bon xale yooyu bu ñu ñëwee tey taxaw fii assemblée dina am image boo xam ne maanaam seetu boo xam ne bii tey seetu bu rafet lay doon bu leer naññ ci ñun ñi nga xam ne ñooy seeni waajur taxawal fii péncum ndaw réew mi mais bu ñu nekkee fii di saagante di xastante lii la Ablaye Wade def lii la Macky Sall def sa napa de sens